monsieur Baba Tandian ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. am nañu mbégte dalal la ci matinalu réew mi tey yow yaa jiite Saint-Louis basket club jiite woon nga fi aussi fédération sénégalaise de basket alors fédération boobu dafa jël dogal ay bés bi ñu génn daal di lay euh, sanctionné ci diiru fukki at yoo xam ni amuloo droit yëngu ci daray basket fii ci Sénégal euh, d'abord noo jàngatee boobu daan bu la ñeel. amu ci benn jàngat du dul jàngatu affaire bandi la rek. voilà loolu daal loolu rek jàngat boobu laa si am. yàgg dañu wër lii nag dañ koy yàgg wër xamuñu woon fan lañ koy amee xamuñu woon fan lañ koy jaaree. mais pourtant nag amoon nañu occasion bu yàgg pour def ko mais defuñu ah mais parce que xamoon nañ ne que taxi yi amu leen benn sañ-sañ. un ancien président ñu koy woo commission de discipline taxi yi mayu leen ko. Hmm. amuñu benn sañ-sañ non plus un ancien président ñu koy sanctionné. taxi yi mayu leen ko. Hmm. comme taxi dafa xaw te benn genre dictature moo am ci biir fédération basket bi. parce que bon ñii ñëw nii bu ñu xamoon basket réellement je crois que euh, ni ma ñëwee jóg dem Saint-Louis basket club je crois que dañ ma siy gunge félicité ma si mais bi ñu ma nommé fale président mais maître gisuma ko benn yoon mu jël téléphone woo ma félicité ma mais moom bu ñu ko nommé président Duc dama ko félicité mais xam nga euh, seen problème moom mooy ni niñ may niñ ñu may faagagale c'est-à-dire que faagagal bi moom mooy lan man nekkoon naa fi euh, vice président CES basket pendant quatre ans mille quinze ba deux mille dix bi maître bëgg a nekkaat falaat waat une deuxième fois ci fédération bi dañoo dem Thiès Bakel xaw ma gisante ak ñoom xaw ma lan la ñu def foofu daal dalgati foofu ñëw tranquillement en douce ci biir fédération bi génne suma affiliation parce que affiliation moom moo lay permettre nga mën a présenter wu pendant quatre ans man maa ngi affilié parce que affiliation yi man maa koy fay mm-hmm. man maay fay affiliation bu Thiès Bakel parce que Thiès Bakel moyen ba man mii maa koy fay euh, mais ñu fexe dernière année bi euh, ci période élection bi ñu génne man Thiès Bakel ayo bi laajee waa Thiès Bakel da doon yooyu yaa da nga daan may ñu xaalis waa gendarme waa ASFO mais comme gis nañu fii mayu ñu xaalis et tout ça moo tax ñu ñu ñu dindi affiliation bi xam nga mënoo boo koy dindi sax xanaa da ngay def comité directeur nga def réunion def ci dara mais lenn loolu rek lenn moo amoon c'est dañoo ragaloon man ma nekk candidat pour jàkkaarloo ak maître xam na ne maître xamoon na ne ko nekkoon moom amul benn temps hmm. il se bu ma laajoon dina xam ne que man intéressé wu woon pour ma nekk candidat nee naa leen dag may sonal rek ay wax yi ñooy bari rek nit ñi ñooy def ay supputation mais man fédération dara moom ma si neexutul dara soxlootuma si dara parce que la ma def si benn bi def naa ko ba pare bu fekkee naa fa lu baax nit ñi man bu dee man la nag man du ma yóotu fédération bi yóotootuma ko ñu jël ma par force ñu ne ma ñëwoon kaay toog parce que dara amu fi dee man la rek man maa bi sañ-sañ du yóotu ko du ma ko yóotu soxloo ma Saint-Louis basket club nag dañ ma fa woowoon euh, depuis mois de septembre octobre novembre décembre janvier février daal si la si la ma dirigeant Saint-Louis Bakary ñu ñëw cherche ma ñu ñaan ma ne comme man su ma soxna Saint-Louis la dëkk te damay ñëw Saint-Louis tout le temps te gis nañu damay ñëw Saint-Louis ñaan ma vraiment pour ma jiite basket ba pare maire bi si boppam jël téléphone am woo ma mais hmm. maire bi nag kilifa la Euh, bu ma wooyee yaakaar naa nag maintenant nag am naa benn comportement boo xam ne war naa ko moom dul di def ay refus. Hmm. ma daal ma ne ko waaw dinaa dinaa dinaa si waxtaan ak sumay sumay waata ma waxtaan sax suma jabar suma jabar ne mën naa dem man ma dem noonu laa ñëwee Saint-Louis Mbacké Club gars yi fal ma président te bi ñu ma président <laughs> bi ba léegi demul demul demul demul kii parce que dafa dajeek histoire corona bi. Mm-hmm. xam nga tout est au ralenti amatul réunion amatul dara. Mm-hmm. alors mm, ñoom. comme dañ ma bëggoon sanctionné te le fait que ma dem Saint-Louis maintenant loolu moo leen jaaxal parce que 16 barket ni ñu fa génne xam nañ ne loolu mënul ne am Saint mënul am Saint-Louis te ñoom aussi dañu am benn dent moom maître si boppam dafa am benn dent contre Saint-Louis depuis temps ba mu nekkee président du dent boobu nag dafa nekk seen diggante moom ak Saint-Louis te waa nañu loolu c'est-à-dire que en fait Saint-Louis dara lu baax si Saint-Louis te bëgguñu Saint-Louis arrivé et le fait ñëw foofu léegi maintenant nag surtout bi ma defee déclaration ne Saint-Louis dama fi ñëw comme nangu naa fi ñëw naa fi def sama alal am naa ay sponsor yu ñëwoon doon la preuve nag bi ma ñëwee Saint-Louis ñetti sponsor mhm. sponsor bu nekk jox na ma dix millions donc xam nga loolu xaalis la. te loolu moo gën a tuuti si li nga xam ne mën naa ko def donc Saint-Louis dafa doon jógaat pour rayonner. Mhm. te rayonnement boobu nag dama ne Saint-Louis nag moom li ma bëgg a def moom mooy ma wax leen ba ne ko seetlu leen ne fii dañ fi organiser suñu waaye ren tuddee ko Kumba Ndar Samba Ndar ñun noonu lañ koy tuddee te Kumba Ndar boobu nag nit ñi dinañu gis mais mooy gën a ëpp sax par rapport sax man li ma daan organiser Dakar gis nga loolu yëpp nag c'est un xam ne daf leen tiital ñoom fédération bi euh, tiital boobu nag ñu ne nag léegi de il faut que Tandian ñu faagagal ko mais bu mu bu mu toog Saint-Louis bu mu fa yàgg Saint-Louis d'autant plus que ñoom bu ñu Saint-Louis dara baax fa dara dara dox fa loolu nag moo tax ñu jël décision boobu ba pare nag woo ma commission discipline ba pare seen seen seen secrétaire général bi di ma envoyé ay mail ay une heure du matin. Hmm. ba pare que du sax du sax secrétaire général parce que usurpation de fonction la def. benn benn waay daal bu la fa maître indi foofu installé ko foofu. Mm. ba pare mu topp di ma envoyé ay mail une heure du matin. mais quand euh, kooku dama koy wax mu respecté ma parce que man ça fait cinquante maa ngi si basket bi moom moom ça fait même pas un an deux ans la fa mm-hmm. ko permettre man bu ma ci place du ma permettre ku mel noonu. muy jot ay lettre di ko envoyé maître nekk en ancien président de fédération ma koy yónni. parce question de respect la. di ko rax maître comme que tontu waa ma ne ko bu ma envoyé ci maître. une heure quarante sept la ma envoyé premier deuxième mail mu envoyé ma ko quatre heures cinquante sept troisième mail bi mu envoyé ma ko sept heures euh, cinquante huit hmm. ci laa ko wax nag allez allez vous faire voir allez vous faire voir boobu nag loolu la wax nag dama koo manqué de respect loolu saaga la ñëpp dañuy yaakaar dama koo saaga ndey wala yu hmm. mel fekk nag loolu laa ko allez vous faire voir foutez-moi la paix voilà loolu laa ko wax. léegi yow ah, lan lan moo waral dëgg dëgg dëgg ñu yëkkati teg ko sa kaw lan nga def wala nga wax ko véritablement. ba li xew dara dara. dara mm. dañoo bugg a sanctionner parce que seen problème mooy ma toog seen liba kër club arrangé wu leen xam nga mm. maître dafa am ku muy préparé ku muy préparé kooku dafa am équipe kooku équipe boobu kooku ku mu yore équipe boobu équipe dafa am ay rôle bu mu bëgg a jouer ci biir ci biir ci biir championnat bi mm. xam nga fiiba dafa teg benn système bu ñu wax laa bool moom mooy club yi nga xamee ne ñoo gën a am doole dañuy dem club FIBA di leen dimbali ainsi de suite mais loolu xam nañ ne man boobu moo toogee saint moom boobu bu leen wóor ne rek pendant tout le temps bi may toog Saint-Louis moom bu yóbboo ku yaakaar yoon boobu ko yaakaar moom. Hmm. di nga bataille ferme pour mën a am yoon boobu parce que man j'ai l'intention hmm. a tabax benn salle bu rëy. Hmm. te loolu yëpp nag il faut que loolu ñu dundal ko. dundal boobu nag loolu moo leen nekkoon moo tax ñu soo ba pare génne ay articles yoo xam ne kenn xamul fan la ñu ko jëlee. ma laaj sama gestion 2008 di ma laaj ay xaalis bu ak euh, deux mille deux mille onze ak di ma laaj aussi affaire fraude bi yeeg euh, euh, U 18 bi yeeg ak affaire affaire kii affaire maam joojo ah way mm-hmm. assurance maam joojo te fekk assurance maam joojo kii assuré maam joojo mu ngi si biir fédération bi foofu moom dañ ko joxoon xaalis pour mu dem assuré maam joojo ban façon assurance la def man yooyu du ma ko gérer. Mm-hmm. maam joojo dem na Maputo gaañu foofu. mais gaañu maam jooju Sénégal bi yëpp gis nañu bay bi maam jooju gaañoo fii man maa ko faj mm-hmm. man mii Baba Tandian maa ko faj maa si de suma sept millions cinq cent mille ak suma xaalisu bopp mais dem dem Italie fekk foofu fay docteur yi foofu ñu faj ko parce que fédération daf ko bañoon a fay boobu temps bu Serigne Mbuub moo ko jiite fédération sauf que président de la République mayoon na ko fi xaalis ñaar ñooyu ñoo ko fi may xaalis mm-hmm. même Mansour Faye xaalis bu mu ko may sax gaay gaay xaalis boobu dañ koy jàpp utiliser ko si à d'autres fins def ko seen biir championnat man maa ko faj ñu may laaj ay assurance maam jooju gis nga ñii xam nga ruus ñii ñii dañu ruus parce que en fait dañu dem génne loo xam ne amul bopp amul jën. Hmm. dégg nga di ma wax ay affaire Qatar ay dama dama yàq seen liggéey ak Qatar Qatar Qatar dafa joxe ñaar dërëm Qatar Qatar dafa bëggoon a tabax benn benn benn gymnase pour un million cinq cent mille dollars loolu laa doon négocier ak waa Qatar. far na ñu jëlee ma fa bu ñu ñu dem ñoom ñu bëgg dem rek continuer de loolu waa Qatar ne lañ doon waxal Tandian dem na ñun problème projet boobu on le met de côté jeex na. man Qatar joxuma 1000 francs joxuma 2000 joxuma 5000 donc maintenant nag ñoom dañu doon wut ay alibi amuñu alibi ñu ne way ko man dama saaga secrétaire général koo xam ne un gars qui ne qui ne ko ah, parce que kooku nee ko mais foutez la paix loolu moom mooy que julie manque du respect non gis nga lu muy def nii dafa yomb mais dina xam ne nag affaire du yombee noonu nag mais seetaan leen rek ba si kanam rek pour le moment man du leen wax sama trajet la laa bëgg a def parce que Saint-Louis aussi am na lu aussi ñëpp mën a dëggu aussi am na lu ñu bëri parce que ñii ñu ngi yàq basket bi parce que mm. seen problème seen problème la ñuy régler fii parce que loolu moo leen moom moo leen di arrangé seen problème mm. ñoom la ñu bëgg a nga ne yow tamit euh, reconnaître décision bi yow décision décision puukare la quoi parce que en fait xam nga pour nga ko sanctionner il faut quand même nga jot PV yow moom toog na fi pendant benn période il y a quinze jours mu def fi benn interview benn journal mu ne moom euh, euh, euh, élection président saint bi nangu sax tudd sama tur hmm. waaw élection président saint bi il ne reconnaît pas moom nangu tudd sama tur man damay wax turam Babacar Ndiaye xanaa da hmm, am problème yéen ñaar reconnaître ah, élection ma problème moom moom moom mooy lenn mooy moom 2017 jot na xaalis. Hmm. journaux yi ñu ngi koy tuumaal si 300 millions si 100 millions journaux yi ñoo ko bind man de moom laa jël reprendre ko mu porté ma si plainte mais c'est-à-dire kenn waru ko laaj dara Macky Sall dañ koy laaj ba ba ba ba ba adduna gi riin mais Macky Sall su ma nee tontu day tontu su ma nee tontu mu ne fàtte noppi mais les gens continuent à parler mais euh, Mansour Faye tout dernièrement c'est la même chose mais Macky Sall dañ koy critiquer Mansour Faye dañ koy critiquer. ah même Diouf Sarr bii nekk fi sax nii nii nga xam ne il a un problème avec ce stade de pandémie mu ngi def lu lu mu mën ci biir ñu ngi koy critiquer à plus forte raison moom kenn du ko critiquer moom mooy kan kenn du ko critiquer y a de dictature bu nekk ci biir fédération bi c'est-à-dire leur texte texte bu nga xam ne kenn mënul wax nit ñi xam ne ñemewuñu wax nag mm. si man li ñuy jaar parce que xam nañu bu ñu waxee sanction bi dañ leen di menacer on la ay façon mais man nag xam nañu j'ai une liberté de ton man nag kenn jënd kenn mënu ma nëppaloo parce que quand dama am ay ndomb tànk yu dëgër ci biir fédération moom moo tax ñoom ñuy ñëw di ma wax mais pour ma nekk seen porte-voix ñoom si kii bëgg te waa ji na def ay bilan mais man à l'époque bi ma nekk si bopp basket bi ñu mënoo toog six mois porte defuma bilan mais d'ailleurs sax bu dara xewee un mois mais bu mois bi jeexee ci biir quinze une semaine après damay def réunion de comité directeur def bilan mais moom 2017. il a reçu plus de quatre cent millions xaw ma trois cent cent millions ak sponsor yeeg ak Nike ak Orange yooyu yëpp xaalis boobu kenn xamul fan la jaar. afro parce que 2017 bi moom moo ko wax si journaux de que état jox na xamul huit cent millions et tout ça ah, ak ak ak billetterie bi lu ñu encaissé si billet yéen yéen ñëpp gis nañ ko final bi fii. Mm-hmm. Euh, stade bi dafa fekk del vingt cinq mille personnes ñii fay cinq mille ñii fay dix mille. et y avait presque mais xaalis boobu kenn xamul fan la jaar il ne fait pas de compte boo yooyu ma koy laaj nag yooyu moo ko naqari yooyu ma lay wax nag maintenant nag je fais offense à la fédération de basket. Hmm. non quand même qu'on sérieux. boo yoree alalu nguur. Hmm. parce que c'est l'argent public. Hmm. mais tant qu'il y a l'argent public boo ko xasee ba utiliser boo paree da ngay rendre compte et lui il pas rendre compte te dina rendre compte parce que duñ ko bàyyi. maintenant bu ma sanctionné fii ak man ma carrière de basket c'est terminé man dam bii damay def baru d'honneur rek ak Saint-Louis basket club. wan exactement nan la ñuy yore club nan la ñuy gérer club nan la ñuy suqalee club nan la ñuy euh, euh, euh, indi attraction basket si biir dëkk loolu rek moom ma si dugal du leneen utuma si ndam utuma si tur utuma si leneen bu dee tur yàlla may na ma ko bu dee ndam yàlla may na ma ko bu dee. lu ma lekk yàlla may na ma ko. d'accord leer na leer na alors laaj bu mujj bi dafay jëm ci coronavirus bi nga xam ne fi mu ne moo lëmbee Sénégal gis nañu la euh, dugg nga bu baax a baax si xeex bi euh, tey euh, noo gisee situation réew mi surtout bu jàngoro bi weesoo. xam nga situation réew mi dafa compliqué tey parce que réew mi. ñi nekk si biir di lam-lami di coow fi di wax comme genre Babacar Ndiaye bi euh, dañu war a respecter nit ñi respecter maladie respecter ñi nga xam ne dañoo faatu respecter seen i mbokk respecter gouvernement Sénégal parce que gouvernement Sénégal tey dafa jànkoo teg benn problème bu nga xam ne genre problème insolu xamuñu problème bi fa lay jeexee parce que kenn xamul xoolal problème xoolal problème corona bi nu donc adduna bi léegi fi mu ne ñëpp tiit ñëpp ragal et puis waxuma la sax ñuy sax mais économiquement mais da ngay xool dëkk yi dëkk yi ba ci nga yaakaar ne xaajo bu ne dara entreprise yi ñëpp ngi am ay problème yu dul jeex. Mm. yu amuloo looy def ne da ngay dem di dugg ay bureau et puis en plus il ne respecte même pas les directives de l' état. Mm. ah état bi nee na leen plus de réunion à deux à trois ah il faut que les gens restent chez tout ça ñoom ils trouvent le boo xoolee seen PV bi. y a sept personnes dans leur réunion. Hmm. si d'après lu ñu wax ci seen PV. Hmm. et puis que après dañoo def vidéoconférence mais fan la ñuy defee vidéoconférence vidéoconférence da nga yaakaar da ngay yeewu rek euh, euh, entre seize heures et dix sept seize heures trente nga def nga installé vidéoconférence ah et tout ça monsieur ñii di wax fi ñii di wax fi ñii di wax sachant que ñi ñuy waxal ñooñu man ñooñu ñëpp xam naa leen. ils ont fi ñu nekk sax dañoo amul sax internet. ñun na suñu rôle moom mooy euh, jàppale góor gi moom mooy defar ay affiches ñun on yoo xam ne dama ko tegoon ci gouverneur maire yeeg ñëpp ñoo koy jël si di ko yóbbu pour euh, di sensibiliser seen waa gox hmm. donc pour une valeur de d'environ plus de trente millions je crois que loolu moo doon yoon que plutôt nekk fi di def ay ay tribunal même tribunal Dakar sax dafa arrêté corona bi moom moo am euh, yitte nit ñi moo nit ñi dañuy ñaan yàlla rek corona bi yàlla jële ko fi lu mu gën a gaawe jële ko ci àdduna lu mu gën a gaawe te corona bi tey bu fi jógee woon tey am na ñu beneen problème bu nga xamee ne euh, jokkoonte nañ ko moom mooy le plan économique moom mooy économie nan lay jógaatee nan lay démarrer parce que mm. xam nga lu taxaw xaw na luy démarrer moo gën a naqaree démarrer mm. te maintenant nag mu yokk si leneen ma fustiger le comportement d'une société bu nga xam ne bugguma tudd trop une semaine corona bi démarré rek euh, mu ngi yëngatu si ku ndoxu meew dégg naa dafa licencier cinquante personnes mais moi je dis l'état demande aux entreprises ñu maintenir les emplois en mettant un système financier bu nga ne xëy na peut-être ëllëg ñëpp tout le monde va s'y retrouver parce que l'État loolu moom mooy liggéeyam. Hmm. ah quand le président fait ça mais vraiment pour rassurer euh, euh, euh les les les industriels. mais kii amul lu muy def une semaine après Sokorna mais une semaine avec Sokorna mu commencé licencier cinquante personnes mais moom bénéfice yooyu mu daan bénéfice am mu daan def euh, pendant toute l'année wala deux ans en arrière wala trois ans en arrière bénéfice am boobu anam dañu ku nekk na def effort sa bénéfice yooyu ñoo doon def eben nga dugg ko si biir si biir si biir yi salarié yi nga fay leen nga bàyyi leen ngeen toog seen kër en attendant que affaire bi affaire bi jàll ñun loolu la ñuy def ñun depuis le 18 mars dañoo envoyé suñu employé chez eux ñu confiné wu ko te ba pare seen salaire dañ leen koy fay du ci dindi 15 hmm. pour quelle raison ñoom entreprise yoo xam ne dañ daan nga ña xaalis ah am ay bénéfice ñu jékki-jékki saa bëgg a dàq nit ñi au nom mais l' état doit veiller sur ça parce que ces entreprises eh il faut parce qu'on ne doit pas jouer avec la vie de, des gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont suffisamment de problèmes avec ce tucha de corona. Quel xamul fan mais loolu bu fekkoon entreprise yëpp ñoo ko doon def nag kon kon lan mooy xew ah euh, tànjang bu dàqee ñoom ñu dàq keneen dàq yéen réew mi mbañu euh, euh, dàq ainsi de suite ki ñëpp dàq mais bu boobaa état bi lan lay def non il faut savoir être encadré moo tax moo tax nous on encourage l'état on reste derrière l'état il faut que l'état soit ferme mm. un peu dans dans dans dans, dans ce jërëjëf Baba Tandian ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM fàttali ni yow euh, yaa jiite Saint-Louis Basket Club nekkoon nga aussi président fédération sénégalaise de basket merci beaucoup